waa ji da koo gis rek dof daal koy may dix millions xobbet jëndal ko lim takk lépp or la tàgguli mbokkam deful dara mel ni ku dof mel ni daal am na lu mu àndal rek defal ko lu ne ci àddina lu ne lu ne may ko dix millions moom xobbet Mauritanie dix millions CFA lu tolloog moom may ko ko jëndal ko or yi ba bëggatul or waa ji daal yenn yóbbu hôtel rek mu xaar ba waa summeeku mu génn pistolet ne ko tuy ci pooj bi waaw waa ji daal fekk waa ji dafa ne ni làmb rek fekk moom moo ma niroo waaw mu ne yóot pistolet ndeke mu ci toogoon jël rek ne ko këpp ci waa ji ndaw lii de ma xew ni àddina bi tas na kii di ko xool nga ne góor la kii di ko xool rek nga ne góor la doom day lii yemu na ma leeral auditeurs yi mhm. photo boobu ma la yónnee kooku ci nekk noonu nga xam ne moom la ñu takk mosol yëre olof yëre jigéen waaw takk ay or ay mëlfa def ay. fuddanu takk ay or takk ay ceen. du jigéen góor la. wooy <laughs> ji da koo bàyyi naa àdduna. waa ji da koo gis. Ah. bëgg ko. Mhm. xoolal mu jaral ko lu nekk. may na ko ba may ko. loo xam ne dix millions de francs CFA. ak yu sew sewaan yi ñu mënul tudd. ak or yi. jour bi ñu ko ko mayee. Ah. ba ñu def yi ñuy def. Ah. mu jël yóbbu hôtel. ca la seetloo ne. ku jekk ki kooku la kii góor la dañ ko dugal ci page xalaas bi di nga ko gis gis naa ko. wow wow wow wow. kii mën express laa ko naroon def mais. il fallait kii mën naa nekk góor. kii mën naa nax kenn ku dul waaj di. kii kay ki kii kii. mais am na góor ñu mel ni am na góor ñuy nuroog jigéen di. ma ne. non non kii nuroog jigéen ak sol yëre jigéen. waaw fuddanu. waaw takki lam. takki jaaro ah. ñu may lay or nga takk ay or ba fees fuddan sa loxo fuddan sa tànk doon naar bu xees pecc dem ba marié kay nga marié hmm. nga ne góor nga ah mais gisoo la ci topp bañ demee hôtel waaw moom nekk fa sax di lijjanti ndax góor la ak jigéen fital la jël dóor ko waaje ci pooj jël lam la nekkoon ci hôtel ba dem yoonam waa kii nu mu rafetee ëpp léegi nag ñuy ma comme Mauritanie la xew waaw ñun waa senegal Sénégal ñu fagaru ah xam nga fii réew mi dañoo bëgg ñu xees ah. yéeme la loolu mooy problème cest à góoru Sénégal dafa bëgg jigéen bu xees dañuy jël suñu matuwaay. Eh, oui yaay yooyu. ëpp na <laughs> wuy ma ëpp na ëpp na ëpp na. dañuy delluwaat moritani gànnaar waaw. mariage yu démb ba xaw ma ndaw soosu ñu naan euh, jigéen la wala góor la ak ñoom seen. waaw. Hmm. ndekete bi mu jàllee fii démb ni mu jàllee fii noonu la jàllee ci yenn rajo yu Mauritanie yi depuis yaay yaay une semaine am na fa am na ko. Mhm. coow lu bës bu day waar la indi woon foofu. Mhm. Euh, xam nga lu xew Mauritanie rek day ñëw Sénégal. Mhm. léegi ñun ñun dem biñ biñ biñ ko jàllalee ba débat ci ba pare. affaire ba tamit dafa gën a jolliwaat foofa. léegi ñun ñu jokkoo ak ñi nga xam ne ñu ay ay nit yu nekk foofa. yu dëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo sëy ci seen biir. ñu expliqué ñu ñu. Mhm. ndaw soosu kooku ñu naan jigéen ñu naan góor la. du mhm. góor jigéen la. Mhm. man leen lu tax ngeen wax loolu ñu ni ma waa ji da doon labat ñaari xale yu jigéen. mu takk kenn ki takkul ki ci des. nee na ki ki mu takkul. moom ak ay cop copinam. ñoo véhiculé message ñoo bi jël seen photo yi ñoom. tas ko ci internet bi def ci ay audio. daan ni waa ji ki mu takk kii ngeen ku jigéen kii ngeen di gis du góor. diw jigéen góor la wax ci li ñu wax ba affaire bi fi ne affaire bi dafa wër àdduna hmm. léegi nag démb bi ñu ci waxaatee daf ko dafa yeewaat affaire bi léegi nag man ñu jokkoo joktoo naa ci ñu baree bare ñu nekk Mauritanie ñoo xam ne ñoom ak ndaw si dëkk ndaw si ànd naa jëkkëram ba dem liin de miel Maroc ba ñibbi siwaat ñi ngi dégg fi ne moom nee na moom dafa expliquer ba ñemeetu la wax benn copinam bu mu dëkkal ak ay góor yu mu dëkkal ñoom ñooy ñooy wax nii envoyé nañ ma tamit beneen vidéo boo xam ni benn naaru góor jigéen bu nekk fële ca Mauritanie boo xam ni naar boobu. ah góor jigéen dina am naar. Hmm. mais so ay naaru góor xoolal man liñ ma yónnee ci ay image yu ay góor jigéen yu nekk foofu. bàyyil noonu bàyyil noonu sa waay bàyyil noonu ñooñu. waxal borom ñaari turi waxal rek. borom ñaari turi ban ban ban ban. ban waxal noonu ñooñu lañ ñeme. Hmm. ñu ne fii ñemewuñ ko ñii dañuy mël foofu dé am na ko mën a ci jox mhm. ndaw soosu su ma la envoyé moo ki ñi naan góor la dañoo niroo maanaam ndaw si ñu takk ak mhm. góor jigéen bii di wax nii ba bàyyi loolu ban bàyyi ah, ñaari tur yooyu di wax mais ñi fi am ñaari góor jigéen lañu ñu am na bi vidéo bu ma la envoyé <laughs> bon boy wuy ma ñu ñu déglu photo kii bi ñu dugal bi bu ñuy wax góor jigéen la euh, kii bi du góor jigéen jigéen la xale bu jigéen bi copinam moo ko def lii ñoom ñaar duñ doon génn ak xale bu xale bu ji góor bi da génn xale bu jigéen bi ak beneen xale bu jigéen léegi nag mu takk xale bu jigéen bi ngeen gis ni ñuy wax góor jigéen la dañ ko takk léegi kee nag loolu moo ko metti moo tax mu dem dugal photo yi lancé ko ci Facebook lancé ko euh, kii si YouTube bi yàq deram amul lu mu ko waxul façon wax bu ñaaw bu nekk wax na ko am na audio yoo xamante ni dañ ci def euh, ay n'importe quel mot daal wax yu salti yu nekk wax na ko or ku du kii daf ko takk léegi kee kenn takk ko loolu moo tax loolu moo ko metti moo tax mu dugal ko ci biir net bi di wax góor jigéen laa dafa fëdd noog dafa tiire bal dañ dafa def yi yaas yi du rek xale bu góor bi moo ko takk ñii léegi dañu demoon sax Maroc dañ demoon seen lune de miel yàggul sax bu ñuy ñëwee Fatis la xale bu jigéen bi tudd kii du góor jigéen la dañuy waxtu rek xam naa ko bu baax a baax a baax a baax photo yi bu mu ko njëkkee gis fàtteew ma ko woon mais après la sama xarit yi expliqué ma ko nag wax ma kii bi après ma woo ko téléphone nag mu commencé expliqué ma nu mu demee mun ma lii la def en lancé photo yu kenn xamul ci biir Facebook bi ak YouTube amul lu mu ci waxul nee na moom sax léegi dafa ragal def vocal ci nit yi pour leeral dégg ngeen du góor de jigéen la du góor jigéen la vidéo bi jot naa ko waaye nag nee nañu góor la waaye du góor jigéen la jigéen la xale bi jigéen la yii ay xaritam ñoo ko ñoo ko bañ ñoo ko def lii ci vidéo waaye moom xale bu jigéen la jigéen la du góor de jigéen la gis naa ñu ko xam woonaa fii Mauritanie ma xam ku ko xam mu ngi dëkk seen wet nee ma fii la dëkk suñu wet ci gannaaw li beneen vidéo moo mujj ñëw ci gannaaw li ñu ne ndaw lii du góor jigéen la ay xaritam yu jigéen ñoo ko iñaane wax ci ma wax ju bon ji waaye yow laay jigéen la ci sëy bi sax doo lu bees li yàgg na maanaam léegi deux ans wala trois ans mariage